yeah respect everybody So my guy, man, ngi leen di big up ku nekk tour access center chat by chat by bàyyi ma nah. big up ñëpp quoi surtout waa TV yaa TV. I'm gonna come after you know. di big up my name is uh, King Ibrahim from Malja Jana Malai, I'm from waaw yaa ma gën that's right voilà c'est bon King Ibrahim, donc ni ne may King Ibrahim te borom Jana, ni ne Mara Janna commune euh, par rapport de les artistes quoi donc euh, en fait ino mo kibra mo ba présenter encore ala musique ni ma kamala donc euh, mbadum na deba kono ka ni nka a musique ko commencé nyaadi le mo ya dum musique ko kono donc euh, mbele ka ni nka donc question na ko ibrahim yeah donc dafa keneen kaa ko keneen mhm. et la musique kono mune mune kuyatina mi ye reposer pour que musique o dal ka do artiste a kono mhm. donc ani artiste a kono depuis dinta je yamune je dal yeah that's right affaire moom c'est naturel quoi c'est naturel yaalon parfois tamit maanaam euh, fenne ka naye kam maanaam abuka kii daal ila la passion ti quoi maintenant yaa comprendre bi ti saa fo noon tala fekk ke ñi ne ti xama watara ite ala mete bula usilo kona e bula sila dole kon tiwa mente musico a manka dal na passion tinu quoi mais dans quelque dans quelque temps non dal affaire moy moy lolu ngam rapport e jibe kata concert la ak dia nine school mm. donc après natana kanon soto musico bala donc tu afero affaire en pousser vraiment a enta xama à ndone musico kono quoi c'est vrai c'était ça quoi d'accord Et en plus, est-ce que la première musique, depuis a commencé, est-ce que la première, la première musique, est-ce que c'est démarré bien demandé quoi pour que pour que ça nya demande que me rappelle là comme il commence à son son mina quoi affaire ni son nya wa na prema son ego trip ola oui ego trip yo moy dada manam tagé sa bop la manam pour ka fu uh, pour ka fu dal de qui tu es quoi était mu jumal ti xama mu ne ka mana aro kono walla ego tripoti quoi donc euh, sacré rapport da ila premier soñande kelen wol donc euh, yalon freedom boy groupe olum da tu vois hmm. le premier soñi janimba bondi là on était un nombre de un nombre de 4 quoi nga bondi nous wa nombre de 4 hmm, d'accord maintenant vous êtes combien de personnes pour l'instant on est au nombre de 2 hein deux personnes 3 3 ça parce que kilinjaw mom doko wala mon na séparé quoi walang yang mirzuti ko donc depuis o do ko ali se pare wonen sente mal nen nama no no musique bonde quoi c'est vrai deuxièmement lafat keñana kamina par rapport parce que nte manque jam moti mais berna don kamale mol gala ko ke ibrahima woltano jannade quoi cela veut dire wol wala janna rapporol be dirigé cela veut dire na ɗum dawaɗa rek aka jelete donc je ne sais pas est ce que mum kamoye par hasardement est-ce école ɓa kene par rapport nga fna doofu naa moja mingi tawa mo wakati jeli mhm. donc est ce que devant itir ba wol bu itir bu ñaatu quoi yeah yalon wa moy lol jam public ah. mm. ko le ka zero ke ha wa ben tata fo non le ko carrément so diris janna malari mais kanta public ko ni lota ni ko ñine bije wala bije quoi wa mais public ko kafle mais te fon kano ko to ñato ñam même sam parce que public ko ka modo choisir le mhm. alors ka manke wote donc est ce sans compter ko public ko la parole toi tu es devant non no janim public ko diam à atrante la nga dogu quoi ah traité gars dogu cela veut dire avant public quoi avant public ko précisément que atrante la nga na ko déjà cela veut dire vous êtes devant quoi ouais on est devant pour l'instant pour, pour l'instant tant qu'on est là mom ça va aller ça va aller donc à vous on est toujours 221 la Voix Casa Mbol Vola TV non dimbe invité que invitation invitation na min ko donc Ibrahima toujours mbela moy ka est ce que nene conserve ke dulata miya dal itata yenu ka kusor je walla gaali ye bumbero je wala insultation ke pour ila ko wala par rapport miya ko dal miya ko ila ennemi wala parti lo quoi that's right wo soto dale waaw waaw soto dale ke parce que nene nga conserve ke nun jan quartier waaw ngawlu ngan ni kuya soto jele parce que moy lolu nte solta mun na man na tara je comme donc tu vois comme exemple manam par exemple yata sade musanko da moy lo ya mira ko jan conserve ni nga lo jan mol mina la quoi comme lafta la ñaan akam baran donc ite préparation ani yena dépense jama fananke so tay dépense o mum beke ana talante dal ma ofan soto li a comprendre a do mum kuwolti fa dimintale te ye molle fana windi na ja ini tata donc tu vois o be kuwolu musan ko moy lol kanta tamit kasele ke bumbero la o buka bayno quoi parce que ye momo jemom. mom ennemi ol ba bulle tente o mom kanta les ennemis mom waaw mooy loolu quoi ndemool tal quoi ndemool lijjante voilà à comprendre c'est vrai c'est vrai Kolda 2017 nga concert o kijeere ɓa gelɗo ɓen je fay sisto ngo ma ar moussa muulo bala mo jitaate la kono donc nga concert o kije mais quant à heure mina mol selta dal berol ɓenum fay kan ne hmm. a ah, comprendre berol ɓenum fay kan min teŋalon ko c'est la vie quoi o moñana bayla o moñana bayla quand même o mami o ñama janna ko mol botaje donc affaire o tatale conseil o diyata diyata diyata après ennemi ol mulɓe à gauche wol foloteka bureau fayna ayna élément fula maje après wol naate koño ko baye ñin galɓe ɓeru fayol la hmm. ay micro mala ndiyamuta gawlan koye ko anataɗal si kesol le bunnan jang a alaye e molke muntintel mu wolti wondenete bayal a comprendre affaire o tata o ñama concert o tasta jee gaaw kilo ma man di jee consultation maanaam ni élément lu mun taata quoi waaw wala kilo boje parce que yow bureau fay ñaamina wala man di jagale kilo ma man di jee consultation waaw troisième question est ce que depuis le artiste a commencé wonen santé mam par rapport à rapport jama jale mi ko ni artiste a commencé la prépa ni la parent te ma conflit ko sol jebe comme la euh, parent a beaucoup de pour yedon manam ni artiste ko est ce que depuis le don je le don artiste Tivaouane fois mala entendre soutenir famille tema pour lagna activité kon waaw surtout namero ha ah. mm. waaw namero ke hono normal la faalon parce que another fois quoi be ben fenkela dal quoi another da fa ñinin quoi pour ka min min dala dal pour ngabula mais ala nata ka taran mum feje wolum bari maade wala kay ko nono non kana fenkel se keno dala alharje film be nyina alharje film bol bol donc abula wanya birinje mo mero yembula tranquillement o kollem quoi mero bukala finu ku kilina la fana manam taw mi nambe nyabaru won mm wo mo anena mal la fi wala anin tata ni nata ka lon donc a ah, concert mo donc ah, a donc donc avant que que du rapport comme donc itar nu ka that's right that's right nyabaru won quoi mm donc o mo la envie de nu ko wow surtout lolu laftanu wala dina ko lu

Mm-hmm. Carrefour vers vers est-ce que ni ni bita conseil lo jere et qui accompagner le comme ils font la fta ñamé mm-hmm. yow sé way fi ñama quoi waaw surtout lolu ok mm-hmm. abi kéri nak quoi parce que dalé be ñama ko fana comme nga fay ñamé de bio accompagner dalé nga do ko quoi na mo ya wala wala Ke te fana ni bo garage ol dal ol be mu na gaynon de wala wala be ko. jam bita jam fa mun ton tele kata waaw ya comprendre anga Et tele kele essentiel soli je e bulannooma nga taa nga diyandi nga seena sans compter ko évidemment fenkijeta waaw sans autant que nga nakkuɗo ta nga nga nga nga financé je waaw oɗo o ɓem kubalti quoi o kam wol vraiment ila lo ñañiñaate ila kuola donc mm. i fana ntol mutale ɓoltanen fulo comme yemuta ñaame ete mm. fana ñante mutale fo ete fo tata wala donc ça ite ni misal fi safiro ke pour koye na album ila son bonde donc euh, financement no fanna ite fono kele fi financé ban walla donc mol be ko mi an ko ke financé pour koye avancé no nyama wo moment so to bi mi an ko mol ke financé dol bi je fon ke fam financé pour dina no reta ma yabi mental janna ja problème o bi janna wonna so problème quoi ya pri aso do mumbala ko do bana fa ko diw tayin son bonde o hmm. problème o bi janna jake ah. fan sun kudo bondita ya zuye wala na ni concert keta ni ko moyo ko jaybe njola nyina la nako nono kodo tiyete ninta ite rapport ma ite kasila ya fa mente est ce que est ce que ka mun kete est ce que manyana est ce que n la ko la wala e a comprendre kay tika kodo le bondi eta ay son bondi ay 25000 ay 10000 say nata concert ko kele bukete jo hanid dasulul la je an kono est ce que est ce que jamla mol bukamul joja

a ah. findi banda y'a an jan donc mo sina no afo ko conseil do ben bulu hmm. ni kay ko ben jola ñina fa no te mun na gaynol ti ndal la be ñon kan xam et tout tout tout temps ko la jital gayno rek gayno rek alors alors matière de business mom ya a pas de sentiment quoi amul gayan amul sœur amul frère amul amul mère amul père donc on tiama na bo ñama donc oh, la balle reste dans votre camp c'est à dire à tous les mhm. fonds d'intervention que à tous les fonds de diamant que mhm. parce que même la mère on a travaillé beaucoup quoi ibu kana na ye fendi ala san donc ar ke dum do kola ar yi fan do kolam e ka ke abuka fendi la donc 11 20 ne buka fendi ala ba fala e vraiment ka ta do kola mais abuka fendi ala voilà tu vois sa te mol fana donc e ka do ko ke e buka fendi la donc 11 venait ba fa ñaan ka programme ñaari chaque chaque fois ka denk la même bu na programme ñaan yalla so donc on ti amra non normalement na tra bo ñama donc ci e ñenta fon ko jënd mi an menager e to lore dalen mi tan mo ta diam la menager ñenta tar bo mi an ka ne mo ba diam la a ou b mi wa kesse en fran forcément mo ñanto jël mi ko projet concert ko mi fona sare wala mi na ménageur bi wala ménageur tu ménageur bi jera ménageur bi hmm mi na mi yalon fana dala jan tout surtout janam la da pauvreté la waaw da pas de travail do ko ti je ti wa surtout mala mi na ménageur fana bi jele un simple jakarta man le matin hmm en jakarta man o kay moy lolu ko do bi jele mais a bi je ya ti je quoi a comprendre c'est vrai c'est vrai surtout do ron rek encore kay a wol ñama je donc sen elegana fele bimbe jento ma mo man présenter jento donc wala ko bañade pour comment ça juma winkata ko may la harata gawa kilo donc j'espère euh, il n'était pas informé hein mm. informé parce que ni ay conseil ay ton ko ñu fañal mais ma informé te kilo fa quoi mhm vraiment raison donc euh, alla yemin kilala dal depuis ala fonko commencé fo jusqu'à présent mol par min perdo non panana parce que jour ña concert ñe moy concert dal to min kita homa sengagne ka fa non je fo gal ka fa homa fal de dal jenjentel homa fo ye fonol non mais mhm. mhm. est ce que une fois parce que y a dol bi je ba kumo do fa parce passer ka mal par moi mhm. est ce que une fois ko ala mal entendre sur toi ni kila ah mal entendre assez ah, surtout no je ne suis pas au courant hein. hmm. waaw dawa kay tankotiwo kuranema imam fellon nanene ma probléme soto nanene ma ñoo mm. saba sungudu man du naatema mm. fenne ma koduku man du naatema donc fan ka rimorol moy nun wa kille son bondi le freedom tastale mais je n'ai pas la certitude quoi mais est ce que réellement son bondi sanko nde ko tete wa si a son bi jere pa bi me tamba mom mm. nga nga soñi moyele afane akinyana mais avant kaka bonde ñamira aye aye contacté ama ama contacté ama avertir ama averti mhm. mais dale norm ñamira normalement na keta mhm. pendant les réseaux sociaux là donc tout est possible mhm. et c'est assez c'est la partie ça fait non la partie ça fait ala la ka bonde no si si abol ñame ou bien grawut quoi ou bien tout te nte nte dal nga Não les tombelo quoi Não les tombele mais não amanya les tombelo Não, não não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não não não Não, não Não, não Não, não nyam donc bi nata ta activité do passer na nata si ta nyam nyam mba fala mose pourquoi ni ke man te avertir mhm. alors qu'on était ensemble on mhm. tele ko não be kenan kira dilal donc forcément abe prévu dilana não ni nata nyen ke ni nata nyen ke nyen sinon abitala la vio konenda faye defe naa ñetti laa doon secteur la do doon dañu amut nice ñu ya continuer donc euh, ni ta rajo bi donc woto était était partout était pour était quand même ça ce n'est rien quoi mm, non pour nte moom ce n'est rien ce n'est rien daal naa fo ñenu moom mm. ce n'est rien parce que ak ah. a comprendre express jamani bi jane ce sont nombre de deux xawma trois mais jaman filenta dama ka fan son bondi la mais o buka baye quoi mais ini mm. e mun be do ko la foko ya fay e jani be ko ko mun kela mm-hmm. dala na donc ñun do kita je erreur quand même erreur meeɗal saɗaɗo o conditionné ana gal kafa comme est ce que freedom bo man tas quoi wa dasra ya molle ka kono ko freedom boy tasal tembe tamban ka kuma jamale mo par par rapport o sawna ko d'après fana luminata ay concert o le kerwan mm. ya fo jele afana ya fo nun jela ko a a mo molle da mol ka freedom tasal mais freedom man tas kan ke ibrahim wala montara jan quoi wala na amanna ta par ma accompagnant waaw mais eh, kuma jama moy tale quoi

donc forcément mon ko bien pour aller telano ñamen mhm. donc il faut que le très attention pour que alwitano ñoy ñamen quoi mhm. pour ça kaw sam donc est ce que y période une son sans barbe en kalka après aba préparé quand pour ñaar demander walla ñen sa m'a fait kali folo non toi je suis je suis en préparation hein. donc sur le en préparation mhm, et moi quoi <laughs> c'est la c'est la vérité. donc mooy man tere man tere jaamu kaa. c'est le freedom quoi c'est le freedom. mais donc donc il est euh, averti quand nga fa da carrément ko nga sone préparé birintamba donc ni to ba ni nte sixième rapport be ñanta fa ko ni tolu ñaa préparé wala donc yi konté donc ya ni ko konté hmm. manam kila tije quoi namal nga préparé mais ah, ma préparé a ko mo fanan te nga préparé le nga fa avant ko ko nga problème voilà mais ma ko ma ta ke ñami quoi ah hmm.

C'est un groupe. Donc c'est bon. Ibrahim, je vous écoute maintenant. La Yes. salam salam, respect everybody. la voix de la Casamance ah. Len 221 Yeah, that's right. production. production donc euh, Kibram be kenda kenda kenda kenda content de King Ibrahim, murta est content? encore le donc a donc alma senti seno tala ñaato a évolué commune delfata Nyame et la vie continue quoi donc kebram mm -hmm. donc min kita fam solla ko ni instant sala tan donc ni fam sol ba ñaadi le fam sol kono mo solde siata wala kelle gëna siata parce que ñaano fam sol siata bul siata kono le e manke kilinde waata waati karri moro moy le donc ah. buka comprendre mm -hmm. donc même musolu musolunten kelunten même paɓe parfois kadi si tal jotaate ba musiwol moy le ñaan pelle ketara ka kin la moy donc te avant kon ko présenté jang donc kon kele musical moy le mm-hmm. partout no mm-hmm. na village ol to dulal to ke moy le men lafta non ke lon donc ala ka bilete ñelo non de mais bila na ke fon si ta ka kata ñam ni mbar rappelé donc ma ni fam sol ba ñoy le quoi waaw fansol ni en fait euh, pour l'instant mom be diari ne quoi waaw te mul gëna siata fansol ko musul lom a comprendre an bi muso ma be di direct ni muso ye kadu mama, ma lon ko Ah ah, o kama ni muso de mal kama de ye ba kulli ko nyaata tale le ko a comprendre mais kel fana bije par kel wala ka mo so symbole kanta moy lol ti wa c'est vrai mais muso fana ni o so de bala mom mo hmm. ku bal ti quoi kon ñen sama ni xani concert sor dal est ce que jarma lañ dem su ko ko déplacer fer comme manam kata kerwan ñolu ay marnda yo participer le concert le comme manam bay garage ul ka accompagner ñam même si mo si mhm. mais est ce que une fois que cas c'est concert on yamin so hors du jarmal rien quoi eh yalla wo fana ça dépend dal ça dépend yalla bi mo le ben jamono mi ko noté mhm. manam parents dal be dimagnol talé eh, xama ye marquage en kilote manam ya comprendre même mo wa wa wa manam c'est fin ise findino dalé mo bandé mhm. mais na tra tel déplacer dal na nga parents je mo ni kacata dal ye dimagnol bula mo ni tata mais mbuka oke quoi albuka ke me mbuka oke me nga je suis sûr et certain ni nga ke non dal abe soto la abe ah, soto le be fil kata ka participer ko en fa mol ta da nu jana mom sia mom ita da le participer ja mhm. donc ne ko nga parent le jenu e dol ah. bula ah, man dol bula donc euh, cela veut dire do lo yalo nya ma kay le ko la ko cela dire ba dawda e boto ko i lefta ko kumina e ko ke that's right

c'est vrai que yéen quoi comme Mama Tall. waaw comme moom la président ori quoi. Mama Tall waaw. Ramatoulaye Ndiaye xam nga. oui oui Elvis. Elvis ñu bool bi ah Baro xam nga Ami Soumaré xam nga. mooy loolu Bari cool nice. ah kon koni ɓe damin kam famsol be bulle min yalkaɗaɓana quoi famsol be bulle to banna e kono jim mbaɗami keɓrama contante ɗo kool bakale par ce que fele famsol soto miyano ka manke même c'est pas dermala sati bantala mol kontante la kola mhm. donc affaire bi on kontar bata mbi murul fana mbi jeyla mbi tentla almela do ko tala nyaato ah, ah, e eh, leftala nyame ala taro nyama mhm. amala c' est possible ko ah, anaba tarate mo way bojeto mhm. ala tarno comme ma leftala nyame ala continue ñaama sati mol baal ko mo wato waate parce que momi an ko sati mo tata ko jigtani na ni na bayi sati nyaata do abe ila artisol wa be presented la berdo mm donc o wonke sinartade mhm, mhm. par ce que depuis jam muka ardido mo mi an ko dal mosa silannole min tambita tol kolala mhm. min keta e, firdom booti donc ardido artisme moye wala mi firdom boye wala gina ayata demlan rapport ɓeede vraiment mission ɓeede donc ko wala defana contente ndeyta ña dal on kon dal mbatala quoi mais c'est est ce que esi ñe so esi le son do dal ya yeddo ya foje dal mi an quoi en même temps mon duré bakara Eh, isi sondo ila sondo fono de isi do kala quoi kala quoi même am duré sur dom de rek ah ok waaw na me da xom ko sañ o manga problème moti dal ça là no comme fanso lulé xam waaw ok waaw that's right donc on vous écoute ok yena ma bëgg seen xol motax man ma bëgg leen yéena ma bëgg seeni xool moo tax man ma woyi leen ana binta baasu waane kooku sama doomu ndey la ana ramses ni fant njaay man de bëgg naa leen ana buuba pe basiru awale fils de Fodé maa leen bëgg mbëggeel bu kenn dul àtte non ba daamee leen son ñoom cool badal quoi that's right kon kon ñu ngi da fam le son de quoi yeah that's right fam so lom mu gal be kon dan to ko la that's right julo mu ñanta julo ñam dal ak ñanta julo yeah donc ñami matu ken sen ko ñama de non non non non so mi mom ah macha allah bozo la quoi bozo mais imagine sombo la je sombo fen ko ñam parce que ñu sombo da men mo ñanta ñu sombo malal kay ah so ñu dar surtout lolu sax waaw ku bal la quoi ku bal nga bu sa daw dal mo be la ka son dal be ka condamna son na ko mm. eh son dal ndam binda ba fo binda ndam fo binda ba na ko do wandal yeah that's right no parfa ni sel da mom <laughs> mum be bu le ko di le ah, ni sel ko ko bonda waaw lo le ka di le quoi eh c'est vrai ka ga ga ni son ka mom mm. ni ni très super son ni mo ko ndante na ko la mm-hmm. dal gaale mu ta ku ba kala foy e tata e ma kono inata yayin tan dila quoi mhm. parce que so mo julo tan ñam dala ñam to jola ñam to jola donc euh, akko ni dal c'est très super extraordinaire mhm. donc 221 casa la voie de la casa ma 221 mbiye contana mbiye jey la mos production donc on est toujours c'est ibrahima qui ibrahima on ya donc an say mba la moy kan mbo continuer la question na ñaata dama ne quoi donc mbe lamoyla mbe posé question na ye la freedom boyla koto min keta homo miya e khadijatou donc mbo wolle posé question na bi wolle ɓe présenté ren jam quand même e freedom na homo freedom na famsol quoi mbo bimbo sir wolle jam miya donc bi freedom boolo ye ite mune mu tan woyla koto donc yembo ye comporté te ñaadi le ini la kuol ɓa ñoy ñaadi le manamu ila ila sowna pam solo ini mul kariaje nyaadi ani para pour ini le enemi donc nyen so ite mun jira ah ni enso kay machallah hmm. enso diatale tawar fakala machallah parce que amon do mola kasato hmm. ay mo be la jayje mo mo ye mo mo ya long ina kitale hmm. machallah ye fani jere mo man juta mo man juta la dal sidama sur waxon ni mam fanga waaw machallah ibu dal amul morom non freedom boy nak dafa yag neex te yalla bu mu tas nak parce que freedom boy

askiro faran mm-hmm. parce que sain jang mun mun mu koti parce que jang ni ko e be mi fra e ka fala chertale mm-hmm. parce que wala na sai wala na moje ma fang pour que concert ok dum ka kino parce que im ka sote be e baye munna parce que sans kon que ni te be ni te be 300 200 yala o be woto marti o jono fayta faransi e defa ne mum bonni je yala o be te keno la ah, wala tan na mais ni ko ni e prix fixé mo nyanda ka jo par ce que kolɓe siarine par ce que itema ala o matiyo fana ya ke ñadile fay e sombondi mhm. fo kaba imala o matiyo fana ya ke ñadile le fa fo a bulo a poso bo kuliyari ne wala a kuliare ah, voilà. donc euh, on est très content avec Mia donc contente la kola bi euh, intervention kende barke avec Freedom Boy donc on est toujours avec les femmes soul donc on est encore euh, min kata Khadijatou donc

waaw yaa ma gën a xam. donc ite nitaraaji bi ite fon ite fon daal ila cadre carrément donc musique o diyata wala quoi waaw waaw lofta kake arti solti e o o daal o kulte mi anka betiyata donc ite kam moni kitara ni bakke artiste o wonko daaba comme donc kibran bi jana toujours o bi encadré la e lafta ñami fo ite fon gana yena yette mbaade fona donc ite o kola fana e freedom muta ñaadi la nda fi do mul fi lol la ni xeyo ɓeɓule molkil dawɗa molkatala molla groupe o donc ni me waaw hein ni hani mo kata la donc tol bol ñama naturel ya kil da ba mul molkil da mul kata na ko waaw donc vous êtes des vap quoi oui non on des femmes parce que ya long donc c'est très ya yalon téléphone non dunya na bo ñama ñi mo ay invité ami invité parce que intel ta dami ndara dula dula ka je télé fon fek fon kan totu kan totu ji am ah, kon fam sol wol ta da da min do na fam sol wol kan jete waaw waaw dañu ah, toj foofu dañu toj foofu ñaar ni mol man ta da mi jemu ko dia fo samay ko mol ñinen ka mo na man ta kon wala na fi kon wala na kiya jangane mm. donc la ni na jang dron toujours rek momi folo me ke ibrahima donc ke ibrahima contente euh, mm, la pour baye parce que fele ye jente nyame la fam sol de nar jante de fonde mm-hmm. parce que fam sol fe ni ta da ni programme mm-hmm. ko ni man présenter je fon lande me mol ke nga qu'est-ce qui se passe mm-hmm. donc ni ta rajibe donc ite ayata ñawña donc famsol fele di naata yete mbiyetela quoi mhm, mhm. donc ku en contane ni la famsol la quoi donc mom yano ko famsol bebul ni hanis fewno ni famsol mantrebul donc bu katano ñaata parce que rapport jël mi yanko dal ito legna ayata même dip ñote ngawa ñalo ito legna ayata wala kende kam mais bi wolle be ñaar parce que par rapport manama ya famsol le soto bu famsol le bambu foy laftal ñame mhm. donc dunya ni bo ko kono ni mo mantere ñam ni mo mantere noma donc ani sifo ñola hanatere to le wano dunya be hani sifana parce que molle kam mo sambano dulara uhuh, uhuh. donc ni reba kula mo mantre bala donc ani fon sa fo fa ko banni ko bala parce que ku mo mantre bala uhuh. voilà donc bi reba dame ani sifana donc mol bi no male parce que munam ya fam so le sara donc yete bi ala fon bi mala la lafta ala nyame parce que molle bi ko mi nyaa ko nyani o bele awu be akir nyaa nyama nyama wala ya bele entendre ko me e kono bele donc on dante la ko bakale